billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibadi laysa lak alayhim sultaan wala wa yaxsimuka min anas ya allah barke borom tubaa uh, gannaaw bi ñu jiitalee ci ziar bi Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg tànd ak wér tey ñoo ngi fii ci kanamu al imam sëriñ Yaafi Buso bi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéey bu sell bi nga xam ne mooy Eh, liggéeyu jumaa ji nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moo ko yor di ko taxaw te di ko saytu eh, ñu ànd ak bokk yi nga xam ne eh, damay wax ne ñoom jumaay Tuubaa miin na leen muy daayira bi nga xam ne subula salaam Touba Bilbao ci njiital sëriñ Mamadou Ndiaye ak coordonnateur général bi nga xam ne sëñ Fallou Dia ànd koog jëwriñ yi nga xam ne ñoo fa nekk muy waa daayira ba yëpp Euh, dañu fàtte itam sëñ Mor Talla Camara ak ña fa nekk ñëpp tey nag ñoo ngi feggoog sëñ saaliwu Diop ak sëñ góoraloo ñoom ñi ak ñin àndal ñu bàyyi ko Bilbao sëriñ bi nag xam naa ñii moom miin nga leen waaye nag ñu fàttaliwaat rek ndax euh, waxtu wum bu nu masaan màggal Touba euh, ñoom dañuy waaj ci biir wàccaay yi ñaari yoon ndax bu ñu waxee lu jëm ci entretien luñ ci mas soxla rek ñoom buñ ko yëgee rek daan nañ ci dugal seen àddiya euh, lu mel ni màggalu Tuubaa damay wax mooy entretien yi euh, bu ñëwee lu mel ni koor gi euh, muy saamu Ramadan mubaarak daayira bi njëkk takk un million ci Espagne indil ko seex indil ko jumaay sëñ Touba mooy daayira Touba Bilbao bii tey dañ ko saxal ay ati at xanaa bu ci dul corona bii ci weer yi ah, at yi weesu ci xatuk jamono waaye seen million moom bokk na ci li daan jiitu ci liggéey bi loolu nag pas-pas bu mag lañ ko àndal ak it euh, seenub liggéey ñu boole ci liggéey jumaay Tuubaa nañuy taxawoo liggéey yooyee noonu lañ sampalee lu jëm ci jumaa ji kon loolu rek laa ci doon euh, jottali sëñ Afia tey jiitam ñu def nañ daan def ndax du mun Mountakha moo ñu waxoon nañu liggéey jumaa ji ñaari liggéey la muy matériel bi nga xam ne mooy mooy taxawu li ci biir jumaa ji waaye matériel bi tam dafa am ay ay boromiru ay doomu aadama yoo xam ñoo nekk ci biir jumaa ji di liggéeyal Sëñ ci jumaa ji kon na ngeen xel ne liggéey bi ñaari jumaa ji ñaari liggéey la muy liggéey muy matériel bi ci jumaa ji ak ak ñi nga xam ñoo nekk ci biir jumaa ji di ca liggéey ñii nag waxi Seex Muntaxaa jooju dañ ko dégg ba fi mu toll ni bu màggal jotee danañ indi euh, loo xam ne ci social boobu la jëm tey jii indi nañ fi téeméeri junni xam naa dañuy jox kàddu gi sëñ Saliou wala sëñ Goro rek yéen ñaar ko ci mën a wax bu ko defee jottali ko jox ko sëñ Yaafe salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu ngi nuyu mbokki taalibe yi di nuyu Serigne Afia Ouza di ko si siyaare bu baax a baax a baax a baax di ko ndokkeel si bis bu màggal bi nu génn di ñaan suñu borom mboolem luñ fi ñaan suñu borom nangu na ko di saak suwaat si yéen ñaan bu baax a baax a baax waa daayira Touba Bilbao ñoo ngi saak waat si yéen ñaan bu baax a baax a baax a baax. te di leen sant bu wér a wér ndax liggéey Serigne tubaakat kat yombut kon daanaka ne bu fekkee suñu addiyee dañ koy ñëw di ko andi si liggéey jumaa ji tawféex la waaw tawféex la ndimbal la loo nga xamante ne defe ngeen ko waa kuréelu tubaab bi baaw gi di daayira subu salaam bi nekk bi baaw gi yëpp ñoo ngi leen sant si turul Mamadou njaay di sant bu baax a baax a baax di sàkkuwaat si yéen ñaan bu baax a baax ngeen ñaanal waa daayira bu baax a baax a baax wa rahmatulahi taala wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di jiite ci siyaar bi sëñ Muntaxa di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barke Seexul Xadim di siyaare sëñ Afia ak suñu jëwriñ ji sëñ Asan ah, wax dëgg lii moom mu ab soññe lay doon ci ñun daal ndaxte bu demee ba ni jumaa yu Bilbao jumaa yu Tuubaa ji euh, turu Bilbao xam nañ ko xam na Bilbao bu baax kon nag ab soññe lay doon ci ñun ñu gën a góorgóorlu rek ah ndaxte liggéey sëñ Tuubaa moom yombul bu demee ba sëñ bi liggéey loola nag ah ak cant la te lépp loo xamante ni defal nañ ko ñu ñaan yàlla buñ ko fekkee waate ñu def lu kopp te am nañ ci yàqeen bu baax a baax a baax ah suñu kàddu nag mënut a bari ndaxte boo nekkee say kilifa moom daanaka ah da ngay daa mënta ñàkk rek ñu jox la ko waaye wax dëgg suñu sañoon duñ ko yëkkati kon nag ñu ngi leen di sant bu baax suñu san di la wax suñu sant ñu ngi koy jëlee ci suñu jëwriñ sëñ Mamadou Ndiaye jaare ko suñu Fallou Dia ak suñu Motalla Camara ba si si ñun ñu xeebu ñii ñu ngi leen sant bu baax di leen gën a wax dëgg yàlla ah, waaw xam naa ñu bàyyi la kàddu gi rek nga jotal leen ko seen bi salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu bu baax a wax di leen siyaare di leen war a àq itam ñu leen jaajëfal ci coono yi di wax ne ni ko seen Assane waxee daara bi baaw moom lii dugg déet ji xamoon na ko na ko jekk njëkk sosaa bi di am sosaa bi amee itam ñu féete ci féete fes goo xam ne ko ne xam ne fes nañ ci si teg ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha hafizahu llahu wara ñu ñaan su borom yokk leen bu baax a wax yokk taxawaay te ko xéer ba ku nekk ngeen liggéey sëñ Tuubaa su borom defal la kàttan nga mën ko defee nu kaw ni nga ko ngeen def ci sax ñu ngi bokk taal bi yëpp sant gërëm ñëpp ci turu daal mu xatun xidma ak ci turu Maamar yi salaamaaleykum wa rahmatullah baax na kon xam naa sëñ kàddu yooyu mooy kàddu yu cant rek eh, noonu tam la nu ko waxe woon joxoon ñu kàddoom ci cant ak ngërëm lu jëm ci taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Bilbao mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ci liggéey bi ña ca jëf ña ci yéene ñëpp yàlla na leen borom liggéey bi fayal boppam te it euh, maanaam ñun seede leen ci ndax dama nekk ci réew ma ba noppi bokk ak yéen liggéey bi bokk ci seen biir ñuy ànd di liggéeyal seexul xadim léegi rek ci seex Modou Muntaxa lañ bàyyi ko doon ko jébbal liggéeyu xasida yi ba mu wax ci wax joo xam ne képp ku dib taalibe soññ nga ndax nee na soññ na moom soññ nañ ko kon nag ki fi nekkal sëñ Tuubaa bu waxee ne soññ nañ ko ngir liggéey sëñ Tuubaa bu sell bi kon loolu mooy soññe bi ci taalibe yëpp kon daal gërëm nañ leen ndax li tax ma wax ne waa euh, waa jumaa ji miin na leen Espagne yaatu na lool la fa nekk itam kenn ku ne xam na ne mat na juróom benn fukki daayire Seexul Xadim te it juróom benn fukki daayire euh, am na ñoo xam bi ko déggee woote bi dañoo gaaw rawante njëkkante am na ñooñ ba léegi ci yéene lañ toll wuy seegun waaye nag loolu duñ ci duñ ci dañ ci duñ ci sori ndax liggéey bi moom Seexul Xadim moo ci wax képp koo xam ne wuy si na ci moom la la wóor ne sëñ Tuubaa moo la tànn liggéey la kon nag yàlla ñu bokk ci ñamuy liggéey loo kàddu yi daal sëñ Saaliwu muy kàddu yu cant muy kàddu yu ngërëm ci jëf yi jiitu ak jëf yi ñu toll kon nag yàlla nañ ci dajeeg barki wax de awaay jël la siina daamoo fi xidmati wa ab lafum maaraamoo inna li siina saarahon li xidmati fa lahumu dayaare wasal ti waaw jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati